asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, man la waat rek maa ñu waat seen nañ ma nataalam bi kii mooy ñu ne kii mooy ATM ñu ne Watson Gambia sax mos nañ koo post ñu ne Watson Gambia mos nañ koo post te information bi to tell you the truth reach out naa to police te nekkul police yu ndaw de nekkul ay Johnson Johnson police yi nga xam ne dañ leen di ñeneen ñi dañ leen dee bribe rek ñu mun leen di eh, lifin yii dañ fi war a taxaw dëkk bi ñun ñoo ko mun a defar ñun as citizens ñun as Gambians suñ toogee di seetaan yenn yi di dem naka sulut noonu because of kii am na xaalis mu ma koo jox moo taxit duma wax si moom moo taxit du ma def si moom ah. maa ngi dégg nag ñu ma wane waaw dangaa teg sa time du gën a fii génne na fële ne du benn nit du ñaari nit te du ñetti nit ñoo wax affaire yi des ATM. police si boppam bu ma leen reach out am na benn police bu wax si ñoom ne daf dee dégg affaire yi kii yaa ngi understand dañ doon xaar information bi mu agsi si ñoom te bu neexee yàlla su ko neexee mu traité victime si yépp képp koo xam ne victime yi ATM nga génn sil munalut la dara da moment police teg nañ ko loxo munalut la dara da moment police teguñ ko loxo tamit mun munalut la dara because his ass is already being exposed man bañu ma si dara bañu ma si dara yàlla laa si am te moom laa see ut fii ku fee toroxal nit te man ma xam ko ma am si lu leer ah? duma la bàyyi nga dem lijjantewu ma sa yow loo ma wax lii moo tax ñun duñ dem fen xoolal Gambia ni naaf fexa yi ñu ngi door di génn naan dugga na fii génn na fi leneen lijjantewu ma loolu lijjantewu ma loolu lijjantewu ko moom xam na ne xam na xam na xam na óor na ko óor yàlla lu moo def xam na xam na lu moo def kon nag man lijjantewu ma loolu danga foog police amuñ woon information am amoon nañ affaire waaye jëluñ steps because of benn victime ñëwutoon foo woon képp koo xam ne victime ATM bii nii nga reach out to man yaa xam Facebook yaa xam TikTok yaa xam foo suma Facebook bi suma noma mu fa reach out to man maa leen di yóbbu ba Banjul headquarters police yi pare nañ pour taxaw si maa leen jox maa leen wax loolu pare nañ pour taxaw si mu bàyyi wala mu dem toog kaso waaw xam nga lii mooy suñ problème ñun Gambia dañ dee maslaha too much and we joke with people's life too much ak lu si mel ni jigéen yëremuloo ko kim ko def moo rëcc awtu man bañu ma si dara kim ko def moo rëcc awtu man te mu ne am na ñeneen ñum ko def te xam na leen. gisuloo jaaxa bi mu ngi wax ak man sax léegi nii imagine daf ma seen message ba pare block ma mu ne kii mu ne jaaxa bi mu ne kii mu ne képp ku ko expose képp képp ku ko boole dina la expose imagine rek that mentality this this woman have ragal na pour expose kii nii sax. ba pare daf ko def ba pare seen ma message ba pare block ma wallahi ak waxtu bii imagine leen ma kool ko léegi nii daay rek mu ne ma xam nga mu ne ku ko expose rek ku ko ku ko boole rek daf laa expose ma ne ko xëy kii yéen la moo wax loolu it's it's time to expose him it's time to expose him xam nga kuy def lu baax doo wax ne soo ma boolee rek ma ma expose la kuy def lu bon rek mooy def loolu bañu ma si dara nag kii bañu ma si dara man ak moom ba kaso noonu seen soxor ba bugat yi